bëggee di leen siyaar nag ginnaaw bi ñu déggee ne démb ni ki démb lañ téye Sidi ci affaire oto bi ñu xëyaatee tey ñuy dégg ci ay information ne jàllale nañ ko ci yéen sukkandiku mën a sukkandiku mooy que xale la woykat la artiste la dafa juum te juum ku dul juum amul euh, ku dul juum amul ndax tamit boo xoolee yoon moom yoon rek lay liggéeyal yoon rek lay def waaye mu ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy nit ñi nga xam dañuy tudd wal dañoo siiw ñoo war a xoolaat suñuy doxalin xool ni ñuy doxee xëj na mbokkam yi mu nekkal wala waa stafam wala ay kii kiyam xëj na yëguñ ci lu bari moo tax toppuñ ci lu bari ba mun a xam ni muy doxe ak ni muy waxee mais l'essentiel moom artiste la dafa juum juum bi mu juum nag ñu ngi koy ñaanal ñu jéggal ko te xam ne dafa juum xale la euh, prison nag bu fekkee ne yàlla dafa def li ñu wax dëgg la wala boog mu ci loxoy yoon prison du du du problème parce que l'essentiel mooy sa carrière ak fi nga toll dara mënu laa yàqal ci sa yoon dara mun laa yàqal ci sa yoon parce que adduna ñin gën a tudd at ñi nga xamante ne ñoo ëpp fi ñu jaar dugg nañ kaso mais teewul ñu ngi génn yëkkatiwu ci àdduna bi te lii day wane que ne yaa ngi woon ci liggéey bu am solo ban lay bàyyi xel ba lii mun laa dal kon boo ci génnee nag gën a la xool fi ngay teg sa tànk ba pare du la yàqal dara parce que boo xoolee les artistes internationaux ñi ngay dégg yëpp ay Craig David ñi ngay dégg yëpp jaar nañ ci kaso Ari Kelly mu ngi kaso ak yeneen artistes yi nga xamante ne vraiment euh, yàlla def nañu jaar ci kaso té biñ paré sen carrière dafa gëna a yëkkatiku ñu lay ñaanal jamm di la ñaanal sutura ba bo ci juggé sa carrière gëna wër aduna nga gëna doon star bi gëna mëna bayyi xal ci biir Sénégal sen bokk la won jazz Pro dina indi yeen information buñ ci xam inshallah bu soobee yàlla. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.